Tape 3 W suivi d'école Sénégal. D'accord. xarit yi am di jàmm yi ànd ak ñun yittewoo yokk seen xam-xam ci làkk wolof dal ak jàmm dalleen ak jàmm ci ëttu école au Sénégal yaatal ngir jàngale wolof fépp foo mën nekk. yu jàppandalu xarala yu bees yi tey ñu ñëw ak yéen ci fànn nuyoo fànn nuyoo nag ki leen ànd ak yéen ci liggéey bi mooy maam Libasse jàngalekat la bu nekk dëkk senegaal di gëstu ci wàllu wolof yeneen jataay dana ñëw ci yeneeni fànn nuyoo nag lu ñu fonk lool la ci senegaal ndax koo nuyu yéene nga ko jàmm moo waral jàmm nga am jàmm nga am jàmm ngeen am jàmm ngeen am jàmm nga fanaane jàmm nga fanaane jàmm ngeen fanaane jàmm ngeen fanaane jàmm nga yendoo jàmm ngeen yendoo Tape www.suividecolosénégal.com